Amen.

Thank you. fort du mos gis noonu waxtaan bi actuellement ñu ngi ci ba tey euh, ñii ñu ngi kon ñii ngi waxtaan ñu ngi toog en tout cas relax moo fi am gis nañu benn groupe boo xam ne ñoom it euh, ñu ngi waxtaan nii euh, Bara Dolly mi ngi noonu am na yeneen ñetti député yoo xamante ni. mi ngi waxtaan ak ñoom ah, maam Diarra Fam mi ngi waxtaan ak Ousmane Sonko <laughs> mi ne woon waa Sénégal bàyyi leen ma parce que moom itamit mi ngi déglu en direct moom maam Diarra Fam mi ngi doon déglu léegi ah, mi ngi waxtaan ak euh, Ousmane Sonko hmm? comme li ma leen wax rek euh, relax moo fi am jàmm ah moo fi amagum actuellement gannaaw xeex bi nga xam nemmeeku nañ ko woon sànq rek mais booy xool daal député yi am na. ñoo xam ne ñu ngi waxtaan à cinq gis nañ fi léegi euh, ñoom Bara Dolly defe na euh, ñii moom euh, kuje politique bi lañu député de l'opposition lañu ñu ngi waxtaan ci seen biir Maam Diarra moom mi ngi jàkkaarloog Ousmane Sonko ba tey mi ngi waxtaan waxtaan bi yàgg na ñeneen ñaa ngi toog seen table ñeneen ñaa ngi xaar ñii ñu ngi liir ñii ñu ngi seen i téléphone kon actuellement mm, ce qui se passe ci biir hémicycle bi daal loolu la mooy li ngeen di gis ak loo leen gisul loo xamante ni mën nañ leen ko jottali yéen mbokku internet yi ñuy seetaan en direct kon dañuy xaar léegi daal li nga xamante ni moom moo des wax nañ ko depuis démb ba tey ñu ngi waxtaanee projet de loi bi lii la ak la ak lii la ak lii la mais ñoom ñu ngi siy discuter ci seen biir ñu ngi waxtaan léegi nag li des mooy ci askanu Sénégal est-ce que député yi danañ ñu ko voté am déet loolu la ñuy xaar pour le moment parce que actuellement. loolu rek la askanu Sénégal di xaar ñëpp ñu ci bëri bokk comprendre nañ ñi comprendre ñu ñi ñu ngi seetaan les débats politiques yi am démb ci télévision yeeg ci rajo yi ba ci tey ci euh, information yi nga xam ne moom moo circulé presse écrite euh, presse parlée bi télévision wala rajo wala site internet yi en tout cas léegi nag la ñuy xaar mooy tey ci àjjuma ji ndagam loolu dana am am déet loolu rek lañuy xaar fi nekk nii ci assemblée nationale xam naa loolu mooy débat fi mu toll nii. yaa ngi jëf kon ñu seetaan ba ci kanam ñu dellusiwaat ci biir débat yi intervention yi naka lay demee. ñoo ngi gis eh, Abdou Mbow tamit mi ngi am ay député ñu mu jàkkaarloo di waxtaan ak ñoom Abdou Mbow bokk ci majorité bi ñu ngi ko gis mi ngi taxaw ak ñaari député yu jigéen ak keneen ku góor waxtaan nañu seen biir ba pare mais li ma gën a jaaxal mooy eh, eh, Serigne Ba Abdou Mbacké Bara Dolly mi ngi woon ci ñoom waxtaan ak ñoom demaat na toog na ci taabalam ah léegi Ousmane Sonko ba tey mi ngi ci discussion bu yàgg ak maam Diarra Fam maam Diarra Fam bi doon wax na ngeen ma bàyyi a Sénégal yéen a ngi commentaire rek di ma tudd mi ngi noonu euh, di waxtaan ak Ousmane Sonko waxtaan bu yàgg ñeneen ñaa ngi waxtaan à droite tamit ci li nga xam ne gisu leen ko am na ay député yu lëngante di waxtaan. am na ñoo xam ñu ngi toog seen table waxu ñoo kenn waaw am na ñoo xam ne dañuy toog rek di xaar débat bi continuer waat ñu nekkaat ci biir débat bi mais président assemblée nationale woote na woote na waat euh, président Moustapha Diakhaté Moustapha ñas woote na waat ci li nga xam ni moom mooy débat bi kon dañuy reprendre lii di débat bi ñu bàyyi leen ak direct bi xool débat bi ana euh, naka naka lay continuer ana yi lan moo fi incha allah rabbi ñu delluwaat suñu micro fa mu nekkoon. Dans le cadre de cette discussion générale, les collègues suivants. Seydou Diouf et Elhadji Mansour Sy. Moi, j'ai eu votre nom. Comme encore une fois, chers collègues, moi, je ne m'occupe pas des listes. je ne, je ne prends pas les noms, je lis ce qu'on me donne. Comme vous n'êtes pas inscrit, votre nom va être barré. Moi, je m'occupe pas.